am li ni mel sant yàlla mënta weesu loolu sant yàlla rek vraiment kontaan ak ak mbégte moom la ñu am fii ba ma gisee yëpp. suba gi ngeen berde. Mhm. daal di dressé seen taabu ci suba gi matin tey mhm, suba gi fajar bu ndaw bi man maa ngi fi woo. Mhm. maanaam lan moo dimbali ci ci nga lu dimbali ci financement. mooy boo ko defee daaw fekkee ko déwén yàlla yàlla tuturaal la nga am doole bi maam bi muy njëkk a def Kazu Rajab tubarkalla mburu ak chocolat la def servi ko nit ñi yàlla dogal deuxième édition bi mu daal def ñaari nag troisième édition bi def na barki mooy bii passé def nañ nag yu bari kon pourquoi pas tey ji yàlla di ko gën a sagal muy sant sëñ Fallou yàlla di ko dolli pourquoi pas mu gën a sant sëñ Fallou pourquoi pas kay eh, gën a sant. ku leen jàppale. sëriñ Fallou rek la ñu jàpp. non fii ku fi am na ku la jàppale. non waaye maam amul ku ko jàppale maam maam sëriñ Fallou rek la yaakaar ginnaaw yàlla la sëriñ Fallou rek la yaakaar. dressage bi di ngeen yeewoo. waaw dressé nañ bi ñu xëyee dressé nañ añ yaa ngi nii te dañu def njogara dañu def reer soo yàlla. mel ni journaliste yi dañ a ci xam na man nitu coow laa dèjà man moom man ragaluma ay coow man dèjà nitu coow laa man ay wax tubaarka damay yokk ci kaw ci kanam ci lu baax. daal Mbaye dafa màgg ci communication damay doomu géwél nag tubaarka du ma géwéloo. da nga daan defante mais léegi tey dañu gis defante benn yoon. non non non du ma du xam nga defante dafa nekk la nga xam ne dafa xeewi nit mën nga defanteeg moom te doo ko doo wax ay bal mën nga defanteek moom ci suuf man xeexu privé laay xeex. alalu booy bi gi ah moom ko de laaj leen ko ko laaj <laughs> leen ma plainte bi ngeen <laughs> ah, a ngeen ma plainte nag yéen ñi yéen a ma yéen a plainte nag waaye fukk de ah da ngeen ko dégg bien sûr da ngeen man laa fanaan kër aw ama gii laa fanaan ci suba ci suba laa xëy tubarka dem jënd jënd damay lu jënd ñëwaat léegi nii léegi man ay bu suba ak jàmm di ngeen ma xanaa ku mu plainte gisuma plainte xanaa xëy na ñëw ci kanam waaye yi jamono yi temps yi jamono gisuma plainte baal ma rek ma yeggal dégg man jàpp ma dara man musuma jàpp dara man Zal Mbaye du ma jàpp waaye man bés bi moom ma ko ba ko invité borom bés bi na ko invité man moom ma bés bi di man invité dong laa ci bés bi. dañ tax nga xëyoon dem jàngi dawal. waaw dañ ma mayoon oto nag vraiment aw kay yaa ngi doog a dikk nag yaa ngi doog a dikk ku ma may oto ku dul ajortu maam Ndiaye savon ku may may oto ku dul ajortu maam Ndiaye mi ma mayoon barki dee ma birig bi moo ma oto bi may ma foofu toog tee leen lii la ma yeggal dem liggéey bërë léegi tey léegi tey yow xam nga ci dara <laughs> léegi tey rek oto bi ñëw loolu daal laa bëgg oto la ñu ma may ah. ma demoon doon jàngi dawal teel Sall Mbaye bu Mame Ndiaye Sall ma gis seen noonu di gis maay macha allah. guu daaw mi sama xel mi ba tey maal mi maanaam guu doo ko fàtte si àdduna amul da ngeen di font rek toog leen xaar ba dégg ngeen moom kese la ñuy toog man gelam laa moom laay génnal sax yow si génn maam moom lu neex yow di nga lekk si ceebu tey bi wala mbaxalu zaal bi ngay xaar. mbaxalu zaal bi lay xaar mbaxal bi rek lay xaar ndax zaal bi dégg naa daal mbaxalam day saf saf te moom nag li ñuy xaar ñun fu mu ne nii kenn du añ. da ngeen ko dégg rek bu daaw bi ñëw ma si woon. daam bi ñëwuñu ko waaye bu daaw bi ko ñam moom rek lay xaar ren jii nga ñëw nga dégg ko ren ñëw da ngay daw ñëw te ren boo ko ñamee nii foo ko déggati da ngay foof ñëw. mbaxal bi kese laay xaar heure bu paree baax Zal a ngi noonu Zal a ngi noonu ci raxas bi <laughs> daal dina mbaxalu pay laa lay toog mbaxalu man damaa tàdd xam nga damaa jàngi woon dawal ajatu maam Njaay damaa ma ndaamaa barki démb la ma may million. tey mu may ma ndaamaar ne ma ci Kazu Rajab moom laa jox ndax bii mooy troisième édition ma ànd ceeg moom bii mooy quatrième édition moom. bii mooy quatrième mooy troisième édition ñu ànd man moom ñu màggal màggal Kazu Rajab mu yëkkati oto may ma mën naa ne. waaw mais Zal yow da ngaa jàngi woon dawal. waaw yëguma ko de. Ah. kër buur de defe naa buñ la foo woo dañ lay jox gisuma convocation. man indi leeral ci loolu ci wax du ma ci leeral ndax aw ma ci lu ma ci wax. Hmm. ndax man man bu dee noonu laay demee kër buur ñu may ma oto may dem kër buur. Hmm. ni may demee kër buur neex na. mais mais mais sa nit démb a ànd xëy rek ayante ne ngeen di demante ah réew mi de looloo fi des fi mu ne nii looloo fi am. yàlla baax na xëy na a ma ne fi mës a hmm. bari na sutura. man wax du ma bàyyi wax de ah. man du ma bàyyi wax man ku ku bàyyi du ma tooñ du ma bàyyi di la tooñ ah, man moom man daw ma dara ku bàyyi du ma tooñ du ma bàyyi di la tooñ boo ma tooñu nag du ma la tontu. mais mais mais ñiy wax naan Sall intérêt moo ko indiwaat ci Mame Ndiaye. intérêt waaye nag bu ma intérêt indee de neex na ni ma intérêt indee neex na de barki dégg ñu ma million ñu mayaan ma oto nii fi ma toog nii oto. ni ma introduire nii de neex na. a xaar mbaxal mu neex rek. léegi tey mu bakkan ne mbaxalu pay laa. ñu bàyyi la nga nga nga togg. waaw noonu moo gën a rafet bu ci kanamee bu ma leen. waaw jeex na ngeen a rafet. waaw dégg ngeen ñëw ci rosée gaal ngi noonu gaal Mame Ndiaye Savon ko noonu gaal lañ ci cin la mu raxas <laughs> Tunusal mu nga ca bomb ba ngeen gis allah fii nga xamante moo dee kër Mame Ndiaye Savon Zal la di def liggéey ba am solo waaway màggal Kazu Rajab Mame Ndiaye Savon di ko màggal fii nga xamante moo di yaa ah, Pikine voilà mu nekk lu am solo seen ko noonu macha allah ma raxas Zaa tuur na ndox ma. Sall Mbaye ngi noonu. pour Mame Ndiaye Savon. waaw ko wax ci raxas